juróomi waxtu ci ngoon yu teg euh, fukki min ak juróom-ñett ca Touba ñu ne batiment bu waa Touba ci kanam amal fa la ci université bu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul fële ca diwaanu Touba ñu ne depuis pose première pierre bi ñoom lañu ñu jébbaloon téeméer yi euh, million kii di Serigne Mountakha Mbacké ci njiitu Serigne Abibou Fallou daal di engagé wu nag euh, benn batiment boo xam ne R plus la bu waroon na tabaxu ci huit cent million man daal téeméeri million ak juróom benn fukk pare na ñu ne gis ngeen ko lii mooy ñaar téeméer yi taalibe yi dajale kon ah, man na nañu wax ne impossible n'est pas mouride maanaam daal lépp mën a nekk ci kaw bu nu takkoo ah, ta nekk daal amul ci yoon murit ndax lépp jaayante la depuis ba yoon wi taxawee ak léegi lii di wane taxawaayu liggéeyu Touba ca kanam ca Touba waaye ca université Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te pareegun ña ngay wëyal eh, ñu ñaan leen